tudd Saliou Thioune président daayira moom administration pénitentiaire tey yéen a ngi Diourbel lu tax. waa li ñu indi Diourbel tey dañuy euh, tàmbali ndax euh, sant suñu borom yàlla suñu borom julli ci yonentam bi teel bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax a baax sant Serigne baax euh, li ñu indi fii tey dañu tàmbali ñun daayira mu administration pénitentiaire boole suñu ñaq suñu doole d'abord former daayira bi. pare nag am dajale loo xam ne lii euh, xaw na am solo ñu xalaat nag ren euh, suñu ndimbal ñu tàmbalee ko ci fi ñuy liggéey mooy Poste Sénégal donc lii mooy ñetteelu yoon bu ñuy génn yoon bu njëkk ba ñu nga woon Ndakaaru ba ca topp ñu ñëw Thiès beneen bi nga xam bii mooy ci toppaat ñu ñetteel bi ñu ñëw fii Njaaréem fekk fi nag suñu collègue di directeur hein, prison bi def lii tey fii euh, liñ fi indi nii nekk na ñaar ak kit hygiénique manam ay sachet yo xamné dañ ci def pâte dentifrice def ci brosse def ci pour jagalé ko xalé yi fi téye ak soxna yi fi boole nañ sax ay serviettes hygiéniques maanaam li soxna yi di jëfandikoo boole waaye rek nañ ko ci jox leen ko donc loolu daal xam nañ ni état wu Sénégal matale na waaye nag ñun xam nañ ni matale na waaye dañ ci bëgg a am luñ ci dolli rek maanaam suñu ndimbal bu bu yem rek boo gisee tey ceeb ñëw fi suukar ñëw fi diw ñëw fi euh, médicament ñëw fi. donc lii lañ ci te di ngeen jógee Diourbel fas yéene ngeen dem feneen ci yeneen ni ko waa des na programme bi programme annuel la donc euh, àggaguñ ci ñu ngi pro progressé donc bu ñu jógee fii rek war nañu demaat ci euh, yenn région ak suñu activité daayira bi annuel donc war nañ ziar war nañ def yeneen ak yeneen mais li ñu tax a jóg daal mooy jàppale ak dimbale daal donc euh, suñ kéem tolluwaay kattan parce que fi la ñuy liggéey suñ teraanga fi la nekk jagale ko suñu mbokk. détenu yi ñu tey fii ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ak xale yi. ci xayma lii ci xaalis ñaata. non xayma bi moom yaakaar naa ne jarul Sénégal jarul amatu ko euh, euh, ay geste bu ndaw la rek parce que boo xoolee li daanaka euh, danañ def geste. voilà directeur bu la présentation quel est votre par rapport. Mm-hmm. salaamaaleykum mbokk yi. Mm-hmm. man Baba Lissa Niane laa tudd. maay directeur bu mag depuis février mm-hmm. xanaa di yëkkati ay kàddu yu cant rek. Euh, maanaam di ci wuutu DAB bi di ci wuutu IRAP euh, di yëkkati kàddu cant au nom de personnel et des détenus euh, muy kàddu yi cant yoo xam ne dañ ko yëkkati jëmale ko ci daayira bi parce que établissement pénitentiaire yi bëri nañ waaye Diourbel lañu choisir tey waaw kon nag le fait que ñu choisir Diourbel loolu kontaan nañ ci loolu wax dëgg yàlla beneen bi mooy jël benn doom boo xam ne nii bu am importance la euh, jagleel ko ñi nga xam ne nii euh, maanaam mën nañ ne ñoom ñoo fi néew di joole yi muy euh, mineur yi ak jigéen ñi ñoom na ñi nag bon le fait que ñu bokkoon ci koor bi xalaat jël seen alal ak seen doole dellowaat ko ci ñi ñu doon yore fii loolu lu am importance la ñoom ñoo ci pionniers yi ah dañuy ñaan peut-être ñeneen ñi nga xam ne nii yeneen organisation yi nga xam ne ñu ci corps bi aussi ñu xalaat lu mel parce que yiw dong la <coughs> te it euh, le fait que li ñu indi nii da lay wanal na rek ñoom xam nañu suñuy problème parce que état bi du jënd dàll du jënd pat ah ñoom euh, le fait que ñu bokk fi xam kër gi moo tax ñu xalaat li nga xam ne nii moom lañ soxla te état bi ko jënd ñu indi ko kon nag ñoo lañ ciy sant bu baax Euh, di ñaan yàlla fay leen euh, yiw di ñaan. Euh, mu mel ni kon benn ouf de soulagement la si. bien sûr waaw dana dana améliorer bu baax sax seen condition de tension parce que dëgg dëgg comme ni ma ko waxee rek état bi du jënd brosse du jënd pat du jënd dal lekk lay assuré ak faj bi waaw léegi nag ñoom dañoo xam loolu moo ñu ñu ñu ñu ñu ñu jëmale seen ci côté boobu waaw kon daal dana améliorer seen condition de tension bu baax baax.